maa uyubi wa maa ifaasi man qaadani sukura fi anfaasi maa uyubi wa maa ifaasi رأيتك ربا خدما أدناسي مؤيسا مني مال الخناسي di nuyu mboolem kilifa yi fi teew rawatina njabootu sunu maam ju tedd sëriñ mu daw balla mi nga xam ne moom la mbokk yi terale bis bi te sëriñ Xaadim Mbakke jiite ko ak mbokk yi mu àndal yépp ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di rafetlu lool taxawaay yu am solo yu mel noonu nga xam ne dundal ak mbokk ngi ci jox mbokk ngi ci sàmm kóllëre ngi ci waaye defar ay diggante ngi ci kon taxawaay yu am solo la yoo xam ne ñi ngi ñaan njaboot gi ko taxawee suñu borom fay leen ci waaye li ñu bëgg ba tax ñu di ko dafa yàlla defal leen ko ci di nuyu bu baax nag waa daayira Taysirul Asir di sëti sëriñ Moustapha Falilou yi nga xam ne ñoo taxawal jataay bii ci ndigalul seeni kilifa tànn tomb bii nga xam ne moom lañ sàkku ci man ngir bëgguñu waxtaan waxtaan muy tomb bu am solo boo xam ne eh, waxtu wu ne jàpp naa ne war nañ koy bàyyi xel mu yarub diine solo si mu am ak li ci war way jur yi fii ñu nekk bu ñuy wax yarub diine tax yarub diine taxoon sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu ñëw sañ ci àll bi nga xam ne bi mu koy sañ ci rabi àll ak i garab rekk fi nekk yarub diine tax ñam àndaloon ràññiku ba fés ci jamono ba fu ñu nekk keneen ku dend ak ñoom xam ne dend nga ak kilifa dend nga ak ku tedd koo xam ne du sa moroom kon di ko waxtaane jàpp naa ne lu am solo la rawatina ci jamono joo xam ne ku amuk seetlu walla njaboot ñor la am nga tiitaange ci ni jamonoy doxe ci yàqute gu tàmbulee tasaaroo dugg gu bari gu ay nit di dugg lu seen yenn nekkut di wax ci lu ñu wër ta wax di ci jëf ak di doxe lu ñu wër doxe te loolu lépp boo ko seetloo cosaan la ak sabab ya mi ngi dellu ci ñàkk yarub diine bu jaar yoon ndax diine moom dafa rek la man ku mu napp ci yow faw nga jag faw nga mën a jagal moo tax ma jàpp ne tomb bu am solo la boo xam ne mbokk yi ko tànn yàlla defal na leen tawfiq ci tànn gi kon ñu ngi ñaan suñu borom ñi itam ñi ñu sàkku ci man yàlla defal ma tawfiq ba li ñuy seenu ñu man koo am yarub diine nag mbokk yi ku ko bëgg a waxtaane da leeral mooy lan waaye danga leeral solo yi am te loolu mi ngi feeñe ci li muy jur da leeral it lan moo wuute la yarub diine ak yeneen yar yi am ndax am na yeneen yar yu am yu bokkut yari diine waaye da nga waxtaane ku yar ci diine yan jumtuwaay ngay jëfandikoo ngir yar mën a am door a ñëw nag ci wayjur yi lu leen war ci yar boobu ndax lan la ñi ngi koy def wala defuñ ko bu fekkee ne defuñ ko lu waral defuñ ko loolu jàpp naa ne lu am solo la kon danañ jéem a tënk tomb yooyu incha allah suñ kem kàttan di ñaan borom bi defal ñu taw tawfiq ak taysiir te defal leen yarub diine mbokk yi yar ci boppam rek borom xam-xam dañ koy xamle ne mooy taxawu dara muy màgg di yokk ba muy mat yépp ko soxla nag lépp luy dund di màgg soxla nañu di ko yar mooy taxawu ko teete ko aar ko peeg ko di ko suuxat yim aajowoo ngir mu mën a àgg fa mu jëm ci dëgg-dëgg loolu mooy yar gàncax soxla na ko mala soxla na ko jur muy jur waaye ay doomu aadama ñoo ko gën soxla soxla gi mi ngi fese ci ne doomu aadama yi ci dëgg-dëgg seenu wuute bariwut ci nit ñuy ñëwee àdduna seenu wuute bariwut ndax ñoo bokk cosaan li ëpp ci nit ñi ab yar ak fañ yaroo moo leen di wutale waaye doomu aadama yi ci dëgg-dëgg booy seet seeni cosaan mën nañoo wuute ci melow waaye cosaan li lenn la kullukum min aadam wa aadamu min turab doomu aadama yi ñoom ñëpp ànd ak seen wuute yu bari ci seeni melo ci seeni lakk ci seeni aada ñoo bokk menn maam mooy aadam wala bokk nga ne suuf sii nga xam ne ci la ñu joggi saa su ne mooy sunu maam ñun ñëpp waaye nit ñi nag wuute nañ ba mel ni bokkuñ dara nit dana kawe bañ jàpp ne doonatul nit malaaka la wala sax di ko jiñ leneen lu koy féete kaw loolu fekk rek taxawaayam rafet la waaye nit dana suufe di suufe ba yées mala kon lii daf nit loolu moo am solo mooy yar bu yar jagee jaaru yoon nit ki mën na koy yëkkati ba mu weesu nit ñi ba mel ne doonatul nit waaye sàggane ko nag mën naa wàcce nit ba mu yées mala te lu ci nekk mi nga am xam nañ ay nit ñoo xam ne seeni taxawaay ak seen jeexit ci àdduna kenn du leen tëkkaleeg nit ñi tax duñu seen morom Maulana Cheikh Ahmadou Bamba misaal mu leer la ci waaye am na ci nit ñoo xam ne it seenug suufe ak seenug xeebu mala ya leen tane ndax mala yi amal nañ njariñ doomu aadama yi te ñoom amulu njariñ kenn loolu nag ab yar bu baax mbaa mu bon moo ko waral loolu moo tax ma jàpp ne waxtaane yar am na solo waaye mat naa bàyyi xel kon nit nu ne mën na ne mel fu ne mën nga fa bàyyi ko waaye yar bu baax mën na laa yéege ba fu nit di àgg nga fa loolu am solo la mbokk yi nit fu ne mën na fa bàyyi ko waaye yar bu am solo mën na koo yéege ba fukk baax di àgg mu àgg waaye fu mën a nekk nag ak fu mën a bàyyi ko bu yar bu baax amut mën nay wàcc di suufe ba yées ñëpp moo tax yar bu baax am solo bokk na ci soloom li ñu sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu jàngaloon nañu dana nëbbal nit ki ay sikkam yar bu am solo dana tax nit ki ay sikkam xam na li man jaala xusnal adabi yux fi jahalatan wa qubhan nasabi nit dana réer dana bonu askan kenn xamul fu mu bokk waaye yaram bu rafet tax fu dem ñu dalal ko ku waxal nga wuyu ko kum jëflante la nga nangoo jëflante ak moom dootoo xool la weesu waaye li gis li nga gis ngay xool loolu bokk na ci li jor li tax yar am solo kon mat a bàyyi xel mbokk yi yarub lislaam nag moom diine lañuy wax waaye ci dëgg-dëgg bu ñuy wax diine mooy lislaam bu ñu nee tarbiya diine ci nit ñi dañuy jàpp ne diine yépp dugg na ci waaye ñun buñ ko waxee lislaam lañ ci jublu ndax yàlla moo ñu xamal nañu diine jànn la inna diina inda allahi lislaam kon yarub diine boobu dëgg-dëggam mooy waajal nit ki ba eggale ko fi mu war a egg doomu aadama bu juddoo dafa mel ne lu ñu waajal ngir mu mën a doon lu ne nañ ko yare nag mooy tax mu mat loola mbaa mu manqué mission bi yàlla tax mu sàkk nit indi ko ci kaw suuf mooy al ibada ci maanaam mi gën a yaatu mooy nekkal yàlla ci kaw suuf nekk xalifa doon kuy dundal suuf loolu noonu lii tax nit ki mën koo taxawee ca nam gën a mate mooy ñu yar ko yarub diine bu mat suñ ko yarut yarut diine du ko man bu yarub diine bi manqué taxawaay ba dana manqué kon am na solo ngir loolu moom nag yarub diine boobu yar la bu matale ndax doomu aadama li nga xam mooy am xel la ak ruu aku yaram ñett yooyu booy booy yar sàggane ci benn mu feeñ ci jëmm ji li tax yarub diine gën a mat ci yi mooy ñett yooyu lay sóoraale dana yar ruu gi yar xel mi yar yaram wi ruu pas-pas moo ko yar gëm yàlla nu nit mën a mel te gëmul yàlla ruuxam dundul moo waral ngeen gis nit ku am àdduna li ci biiram jekki-jekki xaru ci lu tuuti ndax jàpp ni àdduna mënatu fee texe mu jàpp ne bu dee noppalu te fekk foofu lay gën a sonn kooku ruuxam dundul ñi topp ay xelam di ko jaamu di sonal seen bopp bu dégg bëccëg waxtu wu na ñuy jàq ka tiit lu nañu jàpp ne lu leen di alag la lu leen di lor la xel xel mu dala di moomu ñàkk gëm yàlla koy waral bu ñu yaroon ruux ba nit ki xam ne qul lan yusibana illa ma kataba allahu lana doomu aadama day noppalu ndax bi ko yàlla bindee ba mu ko fi nar a jëlee lu yàlla nëmmut ci moom du agsi ci moom su boobaa buy dox ak dal ak aku aku tekkeeral ci lay dox dund gu neex lay dund it ndax xam na ne lu yàlla namm mu jëm si ci moom kenn mënu koo fànq waaye lu yàlla nammut mu jëm si ci moom kenn mënu tax mu agsi waaye bu ruu yaruwur nag yooyu yëpp du ko am am xelit buñ ko yarut nit ki dof lay doon am xel mooy yaru ñu jàngal ko ba mu mën a taxawal àdduna ya àdduna li fi nekk li muy bari bari borom bi ci mbaaxam ak yërmaaneem nee na doomu aadama yi moo tax ma sàkk wa saxara lakum maa fi samawati wa maa fi lardi jamian niin waaye loolu nag yàlla da ko bàyyi ci suuf jox waroom xel yi jox leen xel bëgg ñu jëfandikoo seen xel mën cee dugg jariñoo ko foofu yàlla tënku ko ci gëm ko ak weddi ko jumtuwaay yi ku ko am rek jot ma waral ngeen gis noonu lislaam bi tubaab yi gën a jekku àdduna ndax dañoo jëfandikoo seeni xel ba xam njariñu suuf yi ñu mën ko jariñoo loolu kon jullit ñoo gën a soxla ndax li ne ci kaw suuf ñoo ko moom te ñoom buñ ci jotee danañ ko jariñ danañ ci jariñ diine jariñ ci àdduna bépp waaye li tax yéefar yor ko moo waral saa yi lu meree jaxase àdduna kon xel mu yaru mooy xer mu ñu sol xam-xam bu am njariñ mu di ko dund di ko dundal yaramu yaru nag mooy yaram woo xam ne it dañ koy tàggat ba mu nongu saa bu jóg jotee mu mën a jóg bu daf jotee mën a daf am na ci nit ñoo xam ne ñàkk yar seenu yaram tax na soo ne woon bërit ne ko kaay mënta jóg ndax lan daa jàpp boppam kuy kuy dund ngir lekk te li war a am mooy nit ñi dañuy lekk ngir dund waaye waruñoo dund ngir lekk yu bari ci nit ñi nag dañuy dund ngir di lekk ñooñ ñooy dem ba seenu yaram nodd leen ba duñ mën a jóg duñ sawar ci dara kooku it du defar àdduna kon boroom xel mu mucc ak yaram wu sawar ak ruu guy dund kooku mën a defar àdduna te ñett yooyu nag yarub lislaam rek moo ko mën a defar saa ci benn manqué yi nit yi àdduna yi dana yar nit jàngal ko ba xel mi di naaj lu ne mën koo xam waaye bu ruuga dundut mooy ñi ngeen gis nga xam ne tey mën nañoo xëy benn bis rey mbooloo mu dul jeex boo leen laajoon lu tax nga rey ko duñ la wax dara xool leen benn waaye bi fi ma sa fetal benn président américain yaakaar naa Ronald Reagan la woon daa daa jaar ci barab rek ñu ne président banque mu taxaw génne fetalam dóor ko bal nga xam ne tuuti kon mu faatu jam na ko bañ ko laajee waxut dara lu dul daa xam ne bu ko bu ko reyoon siiw te daa bëgg a siiw loolu rek mooy yiw ci àdduna kooku am ak ruuxam dundul ndax li na ci bakkanu doom aadama xamut xotuura ba nekk ci rey nit xel ma baax na ba mu jàng lu bari ba yeewu ci àdduna waaye roog a dundul waaye nit it bu fekkee ne dañoo defar yaram bi tàggat ko ba mokk nangoo liggéey sawar waxtu bi mën naa jóg waaye defaruñ xel ma kooka ab dof la boo xam ne ku jóg mën koo jariñoo mooy ñi ngeen gis yi léeg-léeg ñu yor jàpp ni àdduna yëpp doole la di tàggat seen yaram gu jëg bëccëg jàpp ne mbir mi bëri la ak yu demee noonu rek lépp seen àdduna lool ñooñu tàggatuñ seen seen yaram lañ tàggat waaye seenum xel tàggatuñ ko taggatuñ seen roo kon nit du mat te ñett yi dajewu roo guy dund xel mu nàcc xam-xam ak yaram wu sawar yarub diine nag moo boole ñett yooyu moo tax muy loo xam ne aajo ju rëy rëy moo ci jëm mbokk yi ñu war ko bàyyi xel moom nag yarub diine dee su ko tànq ci ay aada dee su ko tànq ci nii laa ko bëggee ni yàlla mi bind doomu aadama xam ko xam li gën ci moom ci la ñuy tànq yarub diine moo tax mu gën yëpp gën leen a mat ndax alaa ya'lamu man xalaq yàlla mi bind nit ñi moom moo leen xam comme nu mu waxee ne nit ki bu ñu ko jaaralee fii mu baax foofu rek baax loolu moo tax yar bu ñu mën a yar nit te bu te bu bopp diine boo jàkkaarloo moom gis ay defu ci moom waaye ku diine yar ba nopp ci moom saa yoo ko gisee rek xam ne nit a ngi ne fu ñu nem man faa nekk ku ñu dajeel man laa jariñ fu lor nekk mën nañu fexe bu mu ci loolu bokk na ci solo si mu am mbokk yi ba tax ñu war ko bàyyi xel waaye li tax mbokk yi ñu war a bàyyi xel yarub diine la ca jiitu mooy day tax nit ki àgg ci maqaama al ubudiyya al xaqa xam nga doomu aadama yàlla daf leen bind ngir ne ay jaamam lañ ñu jaamu yàlla waaye ñi ci mat ay jaam nag ñu néew lañ ñépp ñëpp yàlla leen moom waaye ñi ci mat ay jaam moom bariwuñ ñoo ñooñu la yàlla di wax inna ibadi laysa laka alayhim sultaan seytaane loon waxal ne ko samay jaam mënuloo leen dara yow seytaane samay jaam yàlla moom ñëpp waaye lu tax mu ne samay jaam mooy ñi nga xam ne mat nañu ak njaam seenu njaam mat na ñooñu moom seytaane mënul leen dara te nag bu ñu seetloo mbokk yi nit ñi ëpp ci ñoom seytaane jekku na leen ci genn wet ci wet benn yàq na ci seen dara seen diine ma yàq na dara ci seen àdduna kon dese nañoo mat liñ doon yarub diine nag day tax nit ki mat ab abd ba seytaane du ko mënal dara te loolu lu am solo la mbokk yi ndax maqaamam abdu mooy maqaam mi gën a kawe mu ab jaam di dox di jëm yarub diine day suuxat ci nit gëm yàlla ak lim war a àndal lépp day suuxat ci nit bëgg nit ak bañ lu bon day suuxat ci nit bëgg aw yiw ak ñooñ yiw day def ci nit waasiya diini yi day yar nit ba nga xam ne bu beru woon ci barab nar a def ab safaan dana yëg ci biiram lu ko naan lii nga def baaxul ba bàyyi te foofu nag la nit dox jëm diine bu noppi woon ci nit ñi dëgg-dëgg noppi police ak gendarme duñ leen soxla ci ab barab ndax li tax ñu koy soxla nit ki day ne ci biiram fu mu jëm yóbbaale ko am na ci nit ñoo xam ne buñ ber woon romb alal ju jeexit seen loxo xalaatu ko laal am ñoo xam ne nag mën nañoo fekk nit ray ko jël alalam dem seen yoon ñaari nit ñu ñu wuti nañ ñu ngi may nettali ba ki dem rek mel mbokk moo xam ne dafa dem ci ab banque jël fa xaalis la mu fa jël ëpp bi mu demee nag. agent bi doon joxe loolu ci ngoon gi mu mu yëg ne li mu doon liggéey manqué na te ñoom ni ñuy liggéey saa boo amee njuumte yaa koy fay mu jaaxle loolu ci ëllëg sa waa ji dellu si fa daan ne ko démb dama fi doon jël xaalis waaye xaalis bi mu ma joxoon dafa ëpp bi mu ko waxee waa ji dafa jóg taxaw dajale waa banque bépp ne leen xaalis bi ma amoon problème démb mi ngi nii xool leen ku yóbbu xaalisu banque dem ba sa kër delloosi ko kooku la ko delloosiloo du lu tuuti. li wér mooy soxla na ko waaye xam la ne xaalis bu lewut lekk ko amul njëriñ loolu diina rek ko mën a def ci nit yarub diina képp mooy def loolu ndax la ko jàjji ba mu ne ko dellool xaalis bi xamu ko gisu ko loolu bokk na ci li nga xam ne tax na yarub diine am solo dana taxit nga bëgg nit ñi yéene ñëpp jàmm bu ngeen gisee ñi dox di rey nit ñi di bañ nit ñi di yéene nit ñi tàbbi sawara seenu gëm ak yarub diina rek moo manqué waaye ni yërmande yàlla yaatoo amee ni daje ni koo xam ne loolu yarub diina nekk na ci yow doo ëmbal kenn safaan ma waral ngeen dégg sëriñ bi de wax ne irham jamial wara kuy ñaan yàlla yërëm yàlla yërëm ñépp loolu yarub diini moo koy def ci nit yarub diini it mooy tax nit ki mucc société bi mucc bari na tey jote yi relation yi am diggante nit ñi ni muy naqaree léeg-léeg naxante beeg njuuj njaaj yu duggante nit ñi ci seen jëflante yarub diine bu manqué moo ko am moo ko waral waaye su yarub diine matoon doomu aadama yi dund bu neex lañuy ñuy dund ndax nit ki bu ko leeree ne saa bu jëlee alali jàmbur yàlla nga koy gis te dana faatu dugg ci bàmmeel dekkiwaat bu ëllëgee ñu taaj ko ci kanam yàlla taaj nit ñépp ne bi bis sàngam ci waxtu sàngam jël nga alal sàng mi ngi nii kuy xalaat loolu du jël alal jàmbur te loolu yarub diine moo koy def ci nit day tax it nga mën a wormaal ñeneen yi yarub diine day tax nga xam sa bopp xam ne jaami yàlla yi lu nekk ngi ci koo dajal rek wormaal wormaalal ñëpp ni ko sëriñ bi jàngale woon wax ne ñett doomu aadama ñetti nit lay dajal ci jamono ku ko mag ku mag ku maaseel ki la mag jàppe ko ni kilifa ki nga mag jàppe ko ni sa rakk wala sa doom ko maaseel jàppe ko ni sa bopp yoonu teggin mooy foofu fi la yem waaye yarub diine it day defar ab génération boo xam ne dañuy am ay xel yu rafet yu mucc ayib yoo xam ne dana mën a tax ñu tabax àdduna ci anam goo xam ne jàmm lay jur waaye ci am jàmm bu amee ci àdduna bu amee ci àdduna yarub diine ko mën a andi yare ci des yëpp ci ay intérêt lay basé wu ay intérêt nag saa bu ci ay nit dajee rek faaw ñu fenkoo waaye diine na ñu mboole waxtu wane dañuy gën a mën ànd ndax li leen boole dafa yaatu dafa yaatu yaatu boo xam ne ñëpp xaj nañ ci te kenn du ci loolu loolu bokk na ci li jox yorub diine am solo mbokk yi saa bu amee nit ñi danañ sori ñawteef yëpp yu bon yi xew yëpp ci àdduna tasaaroo ñàkk yarub diine rek moo ko fi indi te ñun ñëpp nag yëg amuk seetlu ko amuk seetlu xam nga ne jamono day dox jëm ci di wàcc waaye yéegul yu bari yoo xam ne doomu aadama rusoon na beru ci néeg di ko wax léegi nit dañ koy wax ci kanam ab ecran ay nangami junni nit di la seetaan ba bu yàggut saaga nit ki bu ko defee bu rëcc ba def ko day dara gémmiñam léegi nit ñi dañuy ko mën a saaga ba jamono yi barab yi nga xam ne ba tey jii ñi ngi góorgóorlu ci mbaax boo déggee aw saaga day mel ne dañoo dóor dara sa nopp waaye ñi ko tàmm te yooyu yoon wu lañ toj tof dañuy mujj dem ba boo koy déggat dootoo yëg dara am nay jamono ñaawteef bu amee ci barab day mel ne nit a faatu xeeti ñaawteef yi di am rek day rëy ci boppi nit ñi ba jaaxal leen léegi nit ñi dañuy bàkkoo ñaawteef yi du ma fàtte mukk jamono yi ne ci daara ji di jàng alquranul karim mas ñoo am mbokk dend koo xam ne lii xew léegi nii rek dafa soxna su fa am doom ci lu dul yoon bañ koy tudd togg togg ñam yi indiku ci daara ji dong yëpp dañoo maase duñ ci lekk duñ lekk ñam woo xam ne nii doom ji noonu la juddoo ay donge daara yoo xamugu dara loolu mooy jaww ju baax mbaax gi day des ci ñoom ba luñ luñ jàpp ne sax mën naa nuru safaan ñu moytu nga xam ne sëñ daara bi lu ne daj na ko pour waxul gone yi ne ñam la dara nekku ci waaye dong yee bañal seen bopp ne duñ ko lekk ak dong ni mu bëggeewu ñam léegi lu lu xew yu mel noonu bu xewee nit ñi dañ koy woote di ko réer di ko xumbal kon day wane ne yarub diine mi ngi manqué bu baax te li ko waral lim jur mooy yàqute ak jikko yu suufe yoo xam ne xeet wu wu ko yàlla masa nattoo ñi ngi suuf yoonu xawiye suuf lañ jëm waaye duñ yëgati ñi gëmul yàlla sax te am jikko yu rafet ca kaw lañu nekk kon loolu lu mat a bàyyi xel la mbokk yi te mat ko sóoraale ci sunu sunu mbir yi koom-koomu àdduna sax nag balaa maanaam dox mel ne war a mel mooy yarub diine am ci nit yi ndax koom-koom moom li koy maye mooy nangoo liggéey te moytu yàq te diine lool la yar ci nit dalay yar ba nga nangoo liggéey gëm ne yow mii danga war a liggéey ngir jariñ ñeneen waaye doo nekk aw kal aw gàngal ci kaw nit yi saa boo lekkee nit la lekkal diine day tere loolu ñu de islaam noonu na ñaari loxo saa bu ñu weesontoo loxo bu féete kaw moo gën bu fete suuf santaane woon liggéey diine dalay jiñtal ci loolu gis nga sunu mag ñu baax ñu ridwaanulaahi alayhim ñoom ñëpp ay tool lañ doon yor di ci daj lu ne ndox jafe fa lépp jafe fa waaye teewul ñu des fa des fa ak seeni njaboot ngir xam ne looloo ci jaamu yàlla gi la bokk kon yarub diine day tax nit ki xam ne liggéey da ko war waaye bu liggéeyee ba amee day xam ne lim am da cee war a jàmm yàlla wu ko yàq léegi nag am na ñoo xam ne duñ liggéey wala danañ góorgóor bay liggéey waaye buñ amee lépp dañ ko yàq ñaar yooyu nag benn du ci tax koom-koom jëm kanam koom-koom li koy jëmale kanam mooy nangoo liggéey liggéey bu jaar yoon ba noppi loo ca am nga bañ koo yàq loolu diine moo ko ci yar nit ñi lu mat a bàyyi xel la su amee it li yàq alal léeg lekk du am ndax diine kuñ ci yar àqi alal danga koy génne bari na tey ñu ngeen dégg ñu am alal ju dul jeex ñu xëy xëy ñàkk alal ja boo leen laajoon duñ xam lu ko yàq ñi ci ëpp ci ñoom àq yu ne ci alal ja yuñ génnewut moom la leen yàlla mbugale xañ leen alal sax na ne ñàkk génne asaka day yàq alal day xañe barke ci alal ku ñu yar yarub diine nag yooyu yëpp da ko sóoraale ci sa saw doxalin loolu moo tax ma jàpp ne lu am solo la moo tax ñu war ko bàyyi xel mbokk yi mag ñu baax ñi it loolu lañ xamoon ba buñ dikkee dem ci àll bi seen programme yar génn toon yarub diine fex ba nit ñu yar leen ci diine ndax yarub diine ni ma ko waxee buñ jàpp rek ne mooy jàngale alxuraan jàngal la téere fiq nanga yar ruu la akum xel aku yaram moo tax mag ñi séenum yar dontoon rek sol ay xam-xam gis ngeen Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ci yeesal gi mu ñëwoon di ko yeesal si bi dikkee bokk na ci li mu indi nit ñi doon jàngal nit ñi kese waaye jëfloo leen daw ci bokk sëriñ bi ñëw indi tarbiya nga xam ne jàngal la la ak tàggat la ba li ngay jàng yi nga di ko jëfandikoo loolu bokk na ci li jox wooteem bi mise bi mu am yarub diine yi nag am ay yu mu jago yoo xam ne kenn fekku ko ca ba ca jiitu mooy tarbiya rabbaaniya la yëfi yàlla la yar bu dul yarub diine nag maddiya la ci ay intérêt lañ lay yar nooy fexe ba jot ci intérêt yi nooy fexe ba jariñoo su la intérêt yi ñorut yar bu doo la ñor soo demee ba ca ginnaaw intérêt yi taxoon ñu lay yar gisoo ko nga wàcc nga sànni loola dem doxi neneen yarub diine nag ci yàlla la lay delloo yàlla mi nga xam ne du fi jóg mukk kon bokk na ci melokaani yarub diine tarbiya rabbaniya la yëfi yàlla la bëgg-bëgg yàlla la ñuy def ci yow melow yàlla lañ lay nàmputal ba bu ëllëgee ngay dox doxin doxin ndax dañuy taamu ci nit ñi ñu yor jikkoy seen seen borom ci amal njariñ nit ñi laa biir nit ñi waaye bëgg lu baax ak ñu baax bokk na ci li mu ràññi ko tarbiya shamilal yare ci des yëpp benn côté lay jëm ñii dañ lay yar ci am xel sol la xam-xam yëpp waaye saru ruu ñii tàggat saw yaram ba nga man lépp waaye sa ruu zéro tàggat sam sa kese di la tëddloo gudd ngay wér daka tëj sa bopp fenn waaye doo jàng doo liggéey ñett yooyu benn matu ci lislaam nag mu yarub diine mooy bi nga xam ne ñett yëpp lay bàyyi xel bokk na ci lim ràññi ko dafa équilibre ba noppi dafa digg doomu bu dee yare ci des am na ñoo xam ni ñu yare ak rahbaaniya dañ lay gedduloo àdduna ne la àdduna dara baaxut bu fi dara baaxut nooy jariñoo la fi ne te yàlla bind ko ne doomu aadama yéen a ko moom kiy tëju du gis kenn kenn du ko gis du yor soxna du jaxasoo kenn kooku defar àdduna donte lam jàppe ne yar bu baax la not na bakkanam ba ba fu mu bëggee jëme bakkanam jëme ko fa waaye defarul xel mi defarul yaram bi kooku yi am ak jariñoom day des ñi ci des noonu kon yar bi am équilibre mooy dañuy defar xel mi dañ koy jox lu doy jox yaram wi lu doy jox ruuge lu doy yépp diggu doom ni ngay aaja aajowoo sa diggante ak sa borom noonu ngay soxlaa àdduna wa bu taxi fi ma ataka law dara laaxira wala tansa nasibaka mina dunya yar bu équilibre boobu lislaam rek ko am bu dul lislaam faw genn wet not bu dee àdduna li ñu seetlu mooy jaanib di moo not ci nit ñi sa àdduna lañuy ñuy defar dañ la yee daal ba nga ne jar lu ne nga xam ko xami pexe waaye diine zéro dara du la yàqal lu julli waxtu bu jotee doo ko yëg da ngay nekk ñi ci góor góorgóorlu ba góorgóorlu saa bu ñu féexee ci yëpp la ñu door a jàpp ne julli war na mala du ko def te doomu adama ñi ngi def yoo xam ne mala yi weesale nañ ko seen bopp kon ñooña yar bañ leen yar moo baaxul yarub lislaam nag day def nit mu nite xam ne kaw suuf lu fi nekk alal la joo xam ne kenn waru koo yàq waaye dañ ko war a jariñoo nit it daa di yëngutu saa su ne ngir yàlla ak doomu aadama xool leen xadis bi alayhi salaam di wax ne boo yoroon ak njëmbët di ko fas yéene jëmbat xiin sàq ñu ne la lu xew nga ne àddunay tukki yonent bi nee na boo ko mënee jëmbat bala àdduna tukki gaawal jëmbat mooy jëf lu baax bul bul séenu fekke njariñ la defal rek te xam ne dafa la war loolu mooy nite kenn mën na cee jariñu bu ëllëgee waaye kuy wax ne njariñ loo fekkee kooka yëruñ ko yarub di ndax boo bàyyee xel sa bopp rek yow yi ngay jariñoo tey yi ëpp ñeneen a defoon li mbokk mi waxoon dañ koo fekk mu jëmbat ak tàndarma ñu ne ko yow li nga def doo fekk njariñam mu ne waaye tàndarma yi may lekk ña ko jëmbatoon fekkuma leen fi kon may itam war na maa jëmbat yoo xam ne ñay ñëw bu ëllëgee danañ ci mën a jariñu loolu mooy nite di bàyyi xel yi ñu war a bàyyi xel yépp xam ne ci doomu aadama ñi yàlla wuutal ci kaw suuf nga war fee jariñ la te doo fi yàqu da ngaa war a dundal waaye war rey loolu tarbiya lislaam da ko tarbiya diine da koy def ci nit wuute loolu koo xam ne day jàpp rek ne àdduna boppam la lépp loo xam ne nu koo jariñoo ne ko yàq xam nañ philosophie ay réew ñoo xam ne dañoo gëm ne amuñu ay xarit ay intérêt lañ am am na ci réew yu bàkko lool dañ lay wax ne la ay intérêt lañ am fu seen intérêt nekk ñu jamono loolu fu ñàkk intérêt ba ko kuñ xaritool tey bu subaa mën nañoo noonu yow ngir intérêt lépp lu seen njariñ nekkul pare nañ ko yàqu ndax bàyyi ngeen xel mbokk yi am na ci àdduna ñoo xam ne li ñuy bay ci dugub ëpp na leen foofu at mu jot ay tonnes yu dul jeex la ñuy ndax lan pour commerce mën a dox ndax su lépp ñoree prix bi day wàcc ñoom du seen njaayu dox te am na seen mbokki nit ñeneen ñoo xam ne xiifa nga leen di rey bu ak nit ne woon ci ñoom duñ ko jaay foofa dañ koy yóbbu fexe fi nekk am ci tuyaaba ba pare seen liggéey di dox waaye ku jàpp ne mënuma koo jariñoo naa ko yàq kooku ak nit fekkiwu yu bari yi xew ci àdduna tey ñu am xelum àdduna di ko jëfandikoo waaye manque yarub diine tax na seenum nit a des ba ñuy def yoo xam ne mala sax rus na koo def yarub diine nag day mus la ci loolu bi ci des si tarbiya waaqee la yarub diine du ay misaaliyaat ñu lay wax loo xam ne mënta nekk suuf sii lañ nekk yow di la wax nooy fexe ba dund ci kaw suuf di fi jariñu di fi jariñe te doo fi yàq dara tarbiya aalamiya la it nag yar la boo xam ne bu ñu noppee ci yow bépp barab ci àdduna mën nga faa dund ku diina nopp ci moom fu mën a nekk ci àdduna mën na faa dund ndax day xam ne suufu yàlla ña fa nekk jaamu yàlla jaamu yàlla yarum àdduna dañ lay waajal ngir fenn am na ñoo xam ne tey réew yi ñu nekk saa bu ñu ko génnee tey dootuñu dund yar nañ leen jàngal leen waaye seen biir réew environnement bañ dëkk dong lañu xam l'islam nag bu lay yar nit lay defar l'islam defarut ab citoyen nit lay defar insaan saalih koo xam ne bar bu mu nekk day jàpp ne suufa ma dafa war a jeexital ba bu fa jógee bàyyi fa dara te gis ngeen loolu njabootu Serigne tubaab gi yàlla defal taw tawféex ñuy génn jeexee yi ñu bàyyi ci àdduna fu ñu dem bàyyi fa jeexit ndax lan yar nañ leen yarub diine ba fu ñu mën a nekk ci àdduna it dañuy bàyyi xel lool luñ gis lu baax dañuy jàpp ne war nañ ko mën a jariñoo yóbbu ci seenu njaboot loolu mooy tarbiya alamiya waaye saa bu fekkee ñu ngi la yar waaye ngir benn gox walla ngir jenn jamono bàyyil xel na yar boobu amul solo kon loolu mbokk yi ñu bàyyi ko xel yar nag mbokk yi amee nii solo ràññikoo nii jumtuwaay yi la laaj yoo xam ne faw bàyyi ko xel bu ñu bëggee mu jeexital jumtuwaay ba ci jiitu mooy royukaay bu rafet yar du ay théorie saa boo dee jàngal nit loo xam ne yow mi ko koy jàngal gisu ko ci yow gisu ko feneen dana jafe ci moom mu jëfandikoo kon jumtuwaay bi jiitu ci yar bu rafet mooy royukaay nga xam ne théorie yi ngay yi ne ci téere yi nga di ko joxe boo xoolee jëmm ji gis ko ci loolu la Sëriñ Tuubaa andi woon bi muy ñëw jamono moom daa daa li mu doon wax nit ñi lu mu la wax ci téere ci ay jikkoo ki ngëneel boo jàkkaarloo mu gis ko moo tax mag ñi mu yaroon it gaaw a dégg yar ba gaaw ko jariñoo kon royukaay bu rafet mënta ñàkk ci ab yar loolu it liñ ci déggee mbokk yi mooy kon doomu aadama ji ñu yar faw mu am ku muy royu ci moom koo xam ne day taqoo moom di ànd ak moom di gis ko muy dafa ko dindi moom la sëriñ bi waxoon ndaw ñi ne walla zimu man laa yazaalu aabida li rabbihi ila hudahu qaayida yéen ndaw ñi nangeen ngeen koo xam ne ñaar dajale ci moom aabid la qaayid la aabid la mooy yàlla yàlla la nekkal ci kaw suuf mooy jaamu yàlla la ci maanaam li gën a yaatu mooy yàlla la fi nekkal qaayid la mooy ku ànd ak moom it dana la puus ca lam nekk bu bu dugal la ci kooku mooy royukaay bu rafet koo xam ne abid la waaye qaid la loolu mënta ñàkk barab bi muy nekk it mënu ci ñàkk muy jaww ji moom la doon tere ne na ngeen sori majaalis a shaqaawa maanaam li ñuy tuddee bi asaaliha am yoroon ma bu baax mënta ñàkk ci biir doy na ci nit boo ko doon yar yóbbu ko ci jaww ju baax muy gis lu baax di ko dégg fawum baax alxuraan day wax ne wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la a shay'a waaye wa jaxal lakum sama wala busaara wala fida borom xam-xam yi dañuy wax ne doomu aadama ji kon li muy dégg di ko gis mooy tàbbi ci xol bi fexeel ba jaww ji set rek xale bi ne ci biir jaww ji màgg bu màggee rek baax waaye ak jaww ji tilim mbon gu ne ne fa dana jafe lool nit màgge fa baax kon xudwa bu rafet day ànd ak jaww ji set loolu waral sëñ beru ñëw ci àll bi toj ko indi fi njaboot gi ànd ak ñoom yar lañ ci diin yar bi mu leen yar waaye loolu dañ ci dëgg mbokk yi ne yar ak taqoo da ngeen la Sëriñ Tuubaa ali waxoon ka ñëwoon ci moom ne ko dafa bëgg ku ma defar mu ne ko defar taqoo la laaj te man amatuma jotu taqoo kenn demal ca balla faali defar naa ko nga ànd ak moom defar taqoo la laaj kon ku yar nit da ànd ak moom waaye saa boo xamee nag yarekat bi ma nga fë ci aw xur dong bi ñu yar na ci weneen xur ñuy séenante kenn du gis sa morom yar du am turu yar mën na faa nekk waaye jeexit yar du feeñ moom loolu jàpp naa moo bokk na ci mat bàyyi xel ci euh, warteefi jur yi ñu wax ñu bàyyi xel yu mel ne ku ñu yar ku ne taxoo yow sart la ca taxoo nag mën naa nekk mubaashara mën naa nekk bi wasita ndax ku mënta jonjoo yarit am nga ku mën a jonjoo yar koo xam ne boo ko tegee ci loxoom mu taxawal la ko ñu bàyyi xel lool kon faw royukaay di am bu ñu bëggee yar mucc ayib kon xalaat ak ji jikko yi ñu yi ñu bëgg a wan nit ñi di leen ci woo ci ndaw ñi na fekk mu nekk ci ay nit waaye gone goo xam ne boo ko dee wax mbaax ku fu mu xool du gis dara lu baax bu génnee day jàpp ne danga koy nax ndax li ngay wax ni su baaxoon mu nekk ñi may gis kon li tax mu mën a baax soo ko nee mbaax lii la jariñ fu mu xool la gis ñu baax gis la leen baax jëriñ kooko dimbale ko dana jàpp ni kon royukaay bu baax mënta ñàkk ci ab yar faw ñu di ko am sëriñ Tuubaa it loolu la liggéeyoon mbooleem mag ñi defaroon ay royuwaay la doon defar tasaare leen ci réew mi fu ne ñu nekk fa ay jum doon leeral réew kon jamono day dañ ko soxla ñu ko bàyyi xel waaye jumtuwaayee bokk na ci waare nit boo ko yar danga koy waar di ko fa sëriñ mag ñi ko xamoon nee nañ ku mas a toog ab jataay bu dee timis la boo demee sa doo doo reer dana la waar a waar ba sa xel day suur aw ñam yàlla rek la sa xel di dem bu dee bëccëg la boo delloo sa kër doo añ mag ñi xamoon nañ ci moom li ëpp ci tombam yooyu saa yu musaan julli julli farata faw dana jox ab dars joxe ab dars door tàggu nii doomu aadama dafa soxla ku koy waar ndax seytaane day fenq moom saa su ne di bëgg dindi li ne ci moom kon faw war na am kuy solaat ci moom dara ngir mën a des di doon nit ko équilibre waaye bu seytaanee dugal amul kenn kuy génne loola bu yàggee rek seytaane not kon loolu yi jàpp naa ne lu mat a lu mat a bàyyi xel la lu mat a sóoraale la waaye jàng ak jàngale ku ñu yar dañ koy jàngal mbokk yi xam-xam mënta ñàkk ci biir li gën a tasaaroo ci àdduna yées yi mooy ñàkk xam-xam Sëriñ Tuubaa lim gënoon na bañ ci njaboot gi muy umpale xam-xam li mu daj ci xam-xam bëgg njaboot gi jàng kenn mësu koo daj ci sa njaboot ci taalif ay téere defar ay nit ñu jàngale samp ay daara di neexal ay jàngkat di jënd ay téere liñ ci liggéey kenn mës na gis ku ci liggéey lu toll noonu kon bëggoon na niñ jàng wax ba tey wa man nahaakum an taallumi fa nahyuhu ila dalaali yantami wa man nahaakum an taallumi fa huwa xalifatul ayni al mujrimi wa man nahaakum an taallumi fa innahu yaqudukum lin niqami lu ne lu ne wax na ko ci yooyu kon ñu bàyyi xel ne jàng mënta ñàkk ci mbir mi faw ñu jàngal njaboot gi mabadi uddin jàngal leen li lislaam bëgg jàngal leen luy baax tàggat ci seeni cër ñu door a mën a dem waaye bu jàng amut defar nit dana jafe doomu aadama yi li ñu wutaleeg mala yi mooy xam-xam xam-xam rek leen wutale kon day mbir mu am solo moo xam ne mënta ñàkk waaye bokk na ci jumtuwaay yiy jëfandikoo ci yar liggéey nit ki boo ko yar danga koy liggéeyloo tàggat ay cëram ba bu ëllëgee mu man dara gis nga yarub sëriñ bi donga yu doon dugg ci daara yi ku ci wàcc soo xëyee mën a liggéey mécc mu ne dal da nga ci jaar yi tolloo woon ak seen jamono yi tolloo woon ak seen jamono ba saa yoo wàccee dem ci dëkku taax boo xëyee suba da nga mën a liggéey loolu nañ bàyyi xel ne nit day am métier du ndam nag nit koo xam ne boo ko laajee luy sa métier du la wax dara amu métier di ko bàkkoo loolu du ngóor de ngóor mooy danga nga am métier fexe ba bu lislaam soxlaa nga mën koo fajal ay soxlaam fexe ba doo tuur sa ndoxum xar kanam ci kanam kenn ngir bëgg loo am ibnu ay salaam waa jooje doon ñu doon soow di yéem ak mën a jaamu yàlla am di woor lu bari di jul lu bari waaye liggéeyut yónni salaam ne ku koy dundal ñu ne ko mbokkam day koy dundal yónni ne mbokkam maa ko gën kon ñu bàyyi xel loolu moo taxoon sëriñ bi jël liggéey daf ko muy ponk ci ponk lislaam yi ci ponk yoon wi mënta ñàkk talabul xalaali talabuhu faridatun muammama li kulli muslimin wa kulli muslima noonu na sàkk lu lew farata la ni julli ak war doone farata la doon nekk farata sëriñ Tuubaa loolu ñu jàngaloon kon tarbiya it yarub diine balaa mat nit ki ñu jàngal ko métier am lu man ba bu fi jógee man cee yëngu ngir boppam ak njabootam ak xeet yi ndax nañu bàyyi xel mbokk yi ne alal day lu am solo ci ci ci ab jullit bari na ci gaañu baax ñi ñoo xam ne wàccuwaay yi ñu am du ay jaamu yàlla yu bari moo leen ko may wala ay koor yu bari wala yu mel noonu waaye alal ju bari ju amoon di ko joxe ci yoonu yàlla moo leen ko may doy na ci misaal Seydina Ousmane mbaa yàlla nañ ko ndax joxe bu bari maa darra Ousmane maa amila baadal yow mu yónni islaam wax na ko bis Ousmane mënatut a def lu ko wàññi dara ndax lan lislaam soxla na mu jox lislaam loolu taxoon sëriñ bi bëgg ndaw ñi ñu tàggat leen ci liggéey ñuy liggéey ndaw day liggéey yar bi du mat te liggéeyut bari na tey coow yu bari gone yu dugg lu ñu war dugg di def fi njaaxum ñàkk métier rek lañ ko moo leen ci dugal bëgg nañoo dund. te iruñ dara te waajaluñ leen ñu fas yéene bay seen bopp fu ne pexe mu nañu dugg ca di lëntal di def yu dul noona ngir mën a mën a mën a am waaye bokk na ci jumtuwaay yar mbugal léeg-léeg nag bàcc bàccal yedd xañ la luñ la war a def maanaa yar moo laaj la léeg-léeg nit nga di ko def loo dara mu lànk faw war ngaa jaare moom barab loolu nag day topp lam bàyyi lu mu doon ak nit ko koy def nu mel waaye daal ci yar la bokk bu duma jotee ñu duma ko bu yedd jotee ñu yedd ko bu xañ ko ay njariñ jotee ñu xañ ko waaye yor sa gone di ko neexal bëggoo mu mer woolo fi dañuy wax ne soo bañee sa gone jooy bi mu doonee ndaw bu màggee dana la jooyloo loolu lu wér la kon ndaw dañ ko yar bu jaree duma ñu duma ko bu weesoo étape booba dana xam duma yi lu mu ko doon jariñ bi ci des it mooy fexe ba bu mu am ak jot bokk na ci jumtuwaay yar fexe ba ak jot bañ a am ñu ëpp ci ndaw ñi li leen yàq mooy ak jot ndaw loo xam day xëy soobu ngoon boo ko laaj looy def day wax dara foo yendu démb du yendu fenn foo jëm bu subaa du jëm fenn saa yoo dajeeg moom ne ko foo jëm fenn la lay wax jëmul fenn ku dajeeg moom ci mbedd bu la neexee lonk ko yóbbu jëmul fenn parce que amut lu muy def xakim ba noonu na inna shababa wal faraaga wal jida mafsadatun lil ay ayu mafsada ak ndaw yor dara amul jot yàqu rek moo taxoon gi sëriñ bi ci yar mën a yaram keppaarug sëriñ tubaa nit du fa nekk nga gis ko muy dox te néew ci dara bu jàng jotee ña ngay jàng bu liggéey jotee ña ngay liggéey su loolu ña ngay sikkar waaye toog nii rek dafoo dara dongob sëriñ Tuubaa xamu ci ba àddina yi baax looy def defoo dara foo leen fekk ñu ci dara kilifa yu baax yi noonu lañ doon yare am na mag mu may mbokk may nett li mu nekkee daara Serigne Sohay bu Serigne Sohay bu ko gone gu xuraw mu ni rek yor loxo yi neen di mu def loolu dara nga xam ne ay pexe la def léeg-léeg bëgg a def pexe da yor bool waaxuj dem mu mel da ngaa jëm ci farata fekk jëmoo fenn waaye da bañ mu woo la def loolu yooyu dafa am solo nit ñàkk jot dafa baax ci ndaw wolof yi dañuy wax ne ndaw du të day raw waaye su jot baree nag kenn amut yow soxla nga ne ci sa bopp te àdduna ji yàqu bi tasaaroo rawatina écran yi xew nga xam ne mën nga cee yeexal sa waxtu yépp ci dara du ci am njariñ ci la yàqu gën a gaaw kon bokk na ci jumtuwaay yi am solo yi mën a jëfandikoo ngir yar fexe ba ndaw ñi bañ a amul jot waxtu wane nga occupé leen ci dara xam nga maa ngi lu ñu doon def boo amee juróom-benn at juróom-ñaar ñu dugal la daara boo mokkale alxuraan jàngal xam-xam nga am fukki at ak juróom ñu takkal soxna ber la ci àll teg yoo xam ne doo bari na ci ñoo xam ne la tax mu suñoo jaar ci safaan dañoo amut jot def ko léegi nag nit day am ñeent fukki ak nangam du yor dara dara waru ko soxna yorul jilifut dara kooku bu yàquwut yàlla te waxtu wu ne mi ngi yor dara mag ñu bari liñ mage seeni taw bu ñaar fukki at yi tegale du bari du ko ëpp mag ñu bari kooku du am jot waaye jot gu bari gii ak xéewal yu tasaaroo yi mu ëpp ci li yàq ndaw ñi kon mën na yare bokk na ci fexe ba ndaw ñi ñàkk jot bàyyi xel lool bàyyi xel di leen waar nag ibra di jël di jël ibra ci li xew xew-xew yi di am fi ne saa bu amee nit ki war naa dajale njabootam jox leen ci bind misaal leen la joxe mel ni misaal sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu bi mu nekkee Ceyeen Jolof dafa am ci mag ñi ku mas yónni mu réer ci guddi gi sëriñ bi xam ko ci baatin xam naa ko taal lu ab sebbu ñu taal sebbu bi muy bërëx bi ko ndaw li séenee daal ne sebbu bee de xam naa nit la topp ko topp jëneer bi ba agsi muy ci bi mu ñëwee xëy nuyu sëñ bi sëñ bi laaj ko mu ne ko dama réeroon mu ne ko ah noo def ba ñibbi si gindi ko nag mu ne ko jëneer bi laa séen sëriñ Tuubaa daa dajeen njaboot gi xamal leen ne na ngeen xam ne ëllëg ku fa réer sawara lay gindi sawara muy gindi ëllëg ku fa réer sawara lay génn nga xam ne da caa jël bind wane ci nit ñi bala nga xam ne ci réer nga ne ko rek tàbbi sawara booba yasubillah ña ko tey woon jariñu ci njariñ rëy rëy loolu it dañ koo soxla saa bu dara xewee dajaleen njaboot gi waar leen ci bàyyi leen xel li xew yow itam li xew ci sa bopp di xew ci ñeneen gi di ko jariñoo lu bari ci ñun su njaboot nag léegi lu mën a xew ci nit lu mu la jege jege da nga jàpp ne yow bokkoo ci misaal mu ndaw laa ciy joxe benn waaye day yor fii oto def accident de vitesse oto bi mbëkk garab mbooloo faatu ci ca saasa nga gis ku forombaat daw yi tas war a woo ay nit faatu na ci léegi ci loo xam ne li nga def la def waaye jàpp nga ne yow bokkoo moom loolu du nite nit mooy koo xam ne li keneen ki def da nga ciy waaru koo xam ne jëfi keneen mënu laa waar yaag mala yii di doxe ñeent tànk sorewu leen sam xel jërul nga di ko jariñoo kon nit day jariñu ci xew-xew yi am te xew ci ñeneen mu mu profitoo ca fas yéene du ko dal moom loolu ci yar bi la bokk mbokk yi yar moomu nag mbokk yi lan moo ci war ay wayjur lan moo ci war jur yi loolu nag mat naa taxaw mbokk yi dafa mel ne suñ jamono yi maa ngi jéggul nag ci wax gi ma koy wax waaye wayjur yu bari dañoo démissionné ci kër talatuñ seen njaboot te jàpp naa ne nekkuñ ci lu gën tal njaboot nag ndamul nit mooy ne ci dara jóge fi bàyyi fi njaboot gu ko taxaw xam nañ ne tey Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu wooteem bi mu woote woon waajaloon na ko ba bàyyi fi ñoo xam ne ba mu jógee woote ba daa gën a dem naa lu mu fi naaloon àggale nañ ko teg yeneen waaw ndax ñun ñi ngi bàyyi xel ne naa la ñuy naal bàyyi nañ fi njaboot goo xam ne boo liggéey dañ ko àggale yooyu ma wax yi may bëgg wax nii kenn ku ne na ko laaj boppam ndax ba waa sa bopp yow yëngane ne njaboot li ngay naal ak bëkk di ko def ndax suum nga ci yoon woowu bari na ñoo xam ne déedéet lañ wax bari na ñoo xam ne tey fu seen waajur wàcc bi liggéey bu buñ dikkee mu njëkkoon a bañ ci la ñuy tàmbalee ñëw dama dégg bu yàggut ku wax lu doy waar ma ne àdduna yàqu na ndaw luy def ay njaaxum rek ñu ne ma lam ci jur mooy naqaral baayam lépp lu mu xam ne neexut baayam daal dina ko def li ma xamul nag mooy lu ko baayam def ba mu jaral ko loolu moom itam waaye neen daal li muy def lépp daal bëgg lu la ci jub am na seen diggante lu xew waaye nit na laaj boppam li ngay dox yow boo fi jógee woon tey ndax say way say njaboot waajal nga leen ba lu baax li nga doon def danañ ci mën a wéy wala da nga leen a booyal ñu ne ci leen neex loolu jar xel mbokk yi su boobaa ci la xam taxawaay bi waajur am ci yar bi ci jiitu mooy ñun ñëpp nañ jàng suñu borom li wax ne yaa ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum wa waquduha annaasu wal xijaara alayha malaaikatun xilaadun shidaad laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaluuna maa yumaruun borom bi nee na yéen ñi gëm fegal leen seen bopp ak seenu njaboot sawar kon nit ki yar njabootam war téef ju yàlla wa gàlla ci loosam yow lañ sant nga fexe ba sa njaboot mucc ci sa war noo koy defe téye ci seen loxo foo jëm ànd ak ñoom déedéet balaa yàgg nga jóge fa ci leen fi yar leen yarub diineem wan leen ni liye baax liye bon tàggat ci seeni cër ba soo leen wane ginnaaw sa xel mën a dal ci ñoom ni xelum Sëriñ Tubaa radiyallahu anhu dalee ci njabootam ba mu leen yare yarub diine tàggat leen ci toqi leen ci laata muy ñibbi aljanna xelam dal na menn misaal laa ci joxe boo xam ne sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana nettal na ko ci foofu muy tuddee xutbatu am sas wax ju am solo nga fi joo xam ne murit bu ne war na cee taxaw nee na bi ñu indee sëriñ bi fii ci Touba tey ba defar li ñu lislaam santaane lépp sëriñ Mbàkke Buso taxawee ko bi ñuy dem bay waaja a noppi fajar daa jot ñu nodd fajar dañoo bàyyi lañ doon def dem julli ji noppi door del si àggale loolu mooy defaru sëriñ Touba xool leen lu jamono mësta xam ku toll ne sëriñ Touba ñu ne nekkatul ci kaw suuf li lislaam santaane ñum yaroon nga xam ne moo leen gënaloon seen lépp ànd ak seen sago daf la lislaam santaane ba bi woote bi yàlla jibee ñu dem taxawu ko ñëw agale ko loolu la Sëriñ Tuubaa bëggoon ci njabootam ñoo xam ne su leen wane ginnaaw yi diine du bëtam bëtu diine du xonq benn yoon ndax yow mbokk mi yàgg sa njaboot yaa ngi bàyyi xel loolu ci ñoom wala yaa ngi doon koo xam ne saa boo leen ne jóg leen julli ñu julli soo leen wane ginnaaw kenn du julli boo boo fàttee yeete fajar sax kenn du julli kii def loolu ndax jàpp nga ne boo fi jógee gone yi danañ ko julli loolu responsabilité jur la yàlla borom bi nee na fexeel ba sag njaboot mucc ci sawar nu ñuy mucc ci sawara nañ xam yàlla seen borom te nekkal ko fi loolu lu ñu leen di jàngal la yar leen yarub diin rek ko man ba boo leen wanee ginnaaw loo bëggoon ñu ne ceeb waaye naqari dara kat mën a xultoog tàng bopp mën a tëjëg lépp du ko saafara yar bu rafet rek bu yar rafetee way jur noppalu bu doom tedd kon kilifa yi nañu bàyyi xelloo bari na tey dégâts yu am ci biir njaboot gi boo gëstoo ba ci biir xale yi lañuy wax kenn jaaralu leen fenn am na ñoo xam ne sax man xam naa ba jàng jotee ñoo lijjanti ba dem ci daara di fa jàng seen wajur yëgu kooku bu bu de nekkee ci mbedd mi wala mu dajeek ñeneen ndax li tax jox yitte njaboot gi gën a nekk farata fi mu toll mbokk yi ay mbooloo fi mu ne ñooy sëq ci mbool ci yoon sëq di yóbbu laa wax de noonu tasawuf ñi ngi sëq di yóbbu damay wax ne yéen ñëpp xam ngeen yëngalkat yi ñu ngi sëq di yóbbu jël gone yi di leen yalwaan lu guddeeg bëccëg di leen jëlloo yi fi jàmbur xamuñ yàlla xamuñ seen borom dara lu baax duñ ko def jàpp ne lañ nekk dëgg la wérdkat yi ñi ngi sëq di yóbbu mbëri làmb yi ñi ngi sëq di yóbbu musique kat yeeg caaxaankat yi ñi ngi sëq di yóbbu léegi lu fi des lu ngeen nar dese ñu bàyyi xel ne responsabilité la ku yàlla jox njaboot nga bàyyi xel lim la jox bàyyi xel ne kullukum mas'ul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yawmal qiyaam kenn ku ne ab sàmm nga te daañu la laaj liñ la doon sàmmloo noo ko jofale loolu mbokk yi nañu bàyyi xel njaboot it nag li tax ñu war ko bàyyi xel la ci njëkk mooy ak may la kenn ci nun koo xam ne ay pexeem ak njàmbaaram ak ngóoraam ay lijjante moo ko may doom amul mbaaxu yàlla la mu tànn la nga bokk ci ñi am njaboot lu noo mel ba am njaboot am na ku mel lu ko ëpp ti mënta am doom kon du sa ngóora du say pexe yàlla la ko baaxee mayu yàlla nag jaam bi da caa war a sant yàlla moo wax ne lillaahi mulku samaawaati wal ardi yaxluqu maa yashaa yahabu liman yashaa'u inaasan wa yahabu liman yashaau dukur aw yuzawijuhum dukuraanan wa inatha moo wax it ne wa yaj'alu man yashaau aqima nee na moomoom lépp am na ñoo xam ne ay doom yu jigéen la leen di may duñ am mukk doom ju góor am ñoo xam ne ay doom yu góor képp la leen di may duñ am mukk jigéen am ñum may góor ak jigéen am ñum xañ lépp fuñ mën a jaar ci àdduna duñ am doom loolu yàlla kon ku yàlla boole ci ñum jox njaboot sas na la fexeel ba taraanga yàlla ji nga yayoo ko mooy lan sàmm njaboot gi taxawu leen waaye booyal njaboot mën lu mu leen dara loolu li muy tekki mooy li ma yàlla jiiñ matuma ko yàlla mi la jox njaboot xam ne ne man ngaa yor njaboot kon yitte ak pasteef moo ci des benn bi ci des mooy xéewal la xéewal dañ koy sant la wattaqu alladi amaddakum bi ma amat dëkkum bi anaamin wa baniin alal do njaboot ku ko am xéwalu yàlla la gore di nag baaxut gore di mooy yàlla jox la xéwal nga sàgg sàggane xéwal mooy jox la njaboot nga sàggane leen amoo ci ñoom soxla fu ne mën nañ faa fanaan sa yoon nekku ci gis nga mag ñi bokk na ci seenu yow ci seen room la gone yi daan ndekkee ku xëy nuyoo si ñu xam loo fanaane ku fanaanul ci kër gi mbaa nga biddante ñu xam ne néew woon ci njub lijjanti ko ba bu ëllëgee doo dal tey nag nit dana am ñetti fan ci këram xam ay doom ne du ko laaj laajit nag une semaine danga nit dana ko toog du xam dooy fu ñu ne loolu jar naa bàyyi xel mbokk yi ci koo xam ne antal masul anhu yow lañ koy laaj bu ëllëgee xamu fu mu ne bul ne ma anamu doo la wax fu mu fu mu nekk kon xéewal dañ koy sant ndax summa la tusaluna yawma itin naa yi bis penc yàlla day laaj xéewal yi bi ci des desit doom ab taar la almaalu wal banuuna ziinatul xayaati dunia doom ji rafet nag jàpp naa ne ñu di ko taaroo mooy doom ju jag am na ci doom yi doom joo xam ne bu génnoon fii bu ñu nee diwee baayam baayam bu ma nee làqatu ba kenn du ko gis dana làqatu ni mu amee ñoo xam ne dañuy yàkkamtu ñu ne koy baayam ba seen baay tàllal loxo ne maa ko jur ndax jagu doom ja sa doom nag fexeel ba mu doon doom joo xam ne dañ koy tiitaroo waaye bu mu doon doon ñoo xam ne baayam day làqatu ngir bañ koo jur doom it fitna la mbokk yi ma am innama amwaalukum wa awlaadukum fitna am nattu la yàlla dalay seet ba xam da nga jàll wa doo jàll ak examen nag ku ci nekk benn nga naajix wala nga nekk raasib boo taxawee sa taxawaay bi la war boo ëllëgee nga am ndam ci àdduna am ko àllaaxira boo sàgganee njaboot gi bu ëllëg yàlla mbugal la waqifuhum wa innahum mas'uluun nit dana jag lool mbiram jag ba jàll doomu ñëw mbaa soxnaam ne kee ma waroon taxaw taxawuma ñu woowaat ko delloosi ko loolu danaa am bis bi ñu bàyyi ko xel kon ndénkaan la yit nag mboolem njaboot gi nekk suñuy loxo ay ndénkaan lañ kenn lañ ci moom umal maalu wal ahluuna illaa wadaa'iun wala man yawman an turaddal wadaa'iun ndénkaan lu mu yàgg-yàgg sa loxo yàlla bi mu lay jox doom ji ku set wicc mucc ci lépp la la joxoon fexeel ba buy delloo ci yàlla mel na meloon mbaa mu gën koo jàpp loolu nag responsabilité la mbokk yi boo xam ne jar naa bàyyi xel doom ji baax nag moom la ñëpp bëgg Zakaria moo doon wax naan fahab li min ladunka waliyyan yarithuni wa yarithu min al yaqub waj'alhu rabbi radiya yonent ay salaam waxoon ne tazawaju al walud al wadud fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyaama denc leen ay soxna yu jur ay doom yu bari dama bëgg bu yawmal qiyaamee xeet yi ma ëpp la ci njaboot ñu bàyyi xel ne yonent ay salaam njaboot gi mu bëgg nag mooy njaboot gu ràññu ay jaamukat yàlla ay woroomi xam-xam nit ñu jub waaye ay njabooti mbëri làmba ki ay caaxaankat ak i dalawlakat tànk ñoo ñu taxu suñu boom di yonent bi alayhi ndamoo ñooñu bu ëllëgee kon fexe ba taxawu njaboot goo xam ne dañuy dañuy teral diine doon sagub sagub sagub diine ak jikko njaboot gu mel noonu la soxla ci nit ñi moom la gaa yi baax ñëpp doon ñaan Sëriñ Tuubaa wax na ne habli bi jaahihi waludan munjiba talidu aarifan aliya martaba waxaat feneen ne wal tajcalanha yaa ilaahi saaliha talidu may yaamalu baadi saaliha loolu la doon ñaan loolu la ñaan kon loolu mooy yoon yu mbokk yi faaw ñu bàyyi ko xel te xam na it nag ak njirim du ba bu teel a faatu ndax ku ay waajuram teel a faatu ci jamono ay mbokkam danañ ko taxaw jirim tigi mooy ku ndeyam ak baayam di dund te amuñ ci moom soxla bare na loolu nag ci suñu société bi inna laysa ah, waxoon na ne laysa al yatiima man intaha abawaahu min hammi alxayaati wa xallafaahu dalila inna al yatiima huwa alladi talqaa lahu umman taxallat aw aban mashghula yaay joo xam ne démissionné na ci njabootam ak baay bu tëlut njabootam doom ju ñu am doom ji jirim la doonte ndeyam ak baayam ñu ngi dund ndax amuti taxaw ñooñu nag ñaare ñoom ngeen di dégg ñu ne ci njaaxul ne ci internet yi ku leen neex ñu saaga di santas nit ñi di wax lu bon guddeeg bëccëg kenn di leen yëru am nañ responsabilité ci li ñuy def ñoom waaye waajur yi leen waroon yar taxawu leen taxawuñ leen kenn ëpp leen masoli loolu bokk dañ ko bàyyi xel maa ngi jégalu tey baalu àq nag wasalaamaaleykum